bokkentoona Yatal Vision dal leen ak jàmm ci xibaar ñu dikk ak yéen ci la gën a tee fes ñu daal di koy door mbirum Khalifa Ababacar Sall moom mi nag di Khalifa Ababacar Sall ginnaaw bi nga xamante ne bii nag posé na candidat ci élection 2024 yi ñu dëgmal moom ma leen nag fas yéene wër réewum Sénégal nag foofee ca diwaanu Matam nag la fa dal di yegg si foofee nag ba mu yegsee préfet bu Matam daal dal di boleke li nga xamante ne bii nag moo di cortège boobule takk derrière daal di wàcc ci digg tali ba dal di xaar nag ki nga xamante ne bii moo di Ababacar sàll mu daal di ñëw ñu ne ko nag dañu daal di koy gaareel loolee nag moo jot a xew foofee ca diwaanu Matam loolee nag moom mii nag di Ababacar Sall ak àndandoom nag rafetlu woon ko benn yoon ndax kat jàpp na ne kii di Amadou Ba bokk ci beneen nag wàll ni mu amee sañ-sañam nag wër réew mi ñoom ñi nag nee na noonu amee amee sañ-sañu wër réew mi nag ci coobare ci seen coobare ci ni mu leen neexee daal loolee nag préfet boobee nag dal di leen koy gàntal nag wër réew moomee di diwaanu Fuuta lan fa jot a waxante nag ginnaaw ñoom ak moom takk der ya moom mii di Ababacar Sall foofee ca diwaanu maatam lan ko daal di bloqué cortège sam boobe nga xamante ne bii doon na wër réew mi ginnaaw bi mu posé nag candidat di wër ay parrainage ki noonu nag moom mii di Khalifa Ababacar Sall daal mi ngi xam ne nag ne am na aw naqar bu baax a baax ci jëf jooje nga xamante ne bii defal nañ ko ko foofee ca diwaanu maatam ca orzo gi